Sané vraiment di dalal Bougane Gueye Dany moom nee na mooy original ma ne ko garaawul su nekkee sa bureau yaay original Sénégal original mais parcelle Gueye l'original from Hard Time Parcelles Assainies kon nag ñu koy dalal di nuyu suñu kilifa yi fi ne ci parcelle sunu sëriñ si fi ne parcelle day sëriñ si fi ne yëpp suñuy wëlëre lañ te ñu ñuy ñaanal maa ngi nuyu sëriñ Matar Sylla moom mi borom ci la moom mi déplacé wu lu ñuy def da ngeen koy gis day teew vraiment di nuyu mbooloo mi fi nekkoon yëpp nuyu aussi la génération originale nekk di liggéey depuis 2011 di def social depuis 2011 lu parcelle soxla nga daw wuti ko te yàlla rek a tax booba affaire u mairie amul bu population bi taxaw na war nga nekk suñu maire ñu nangul leen ko kon tooguñu ba mu des 6 mois wala 1 an ñu ne dañoo bëgg a nekk maire il faut que ñu comprendre ñii di naxe ak ñii di raas déem masuñoo laal xaalisu politique masuñoo am poste politique mais teewul tey dañuy génne bilan incha allah duñu candidat boo xam ne dañ naan boo leen ñu falee ñu def lii on présente un bilan et des réalisations incha allah président Bougane Bougane Gueye Mamadou Guèye l'original Bougane original yow demal jëli Sénégal ñu ànd ak yow mais parcelle assuré nañ ko assuré nañ ko parce que ban koy liggéey ay ati ati at booba ñañu nekkoloon gëmuñu ñu woon ñu nag on est digne et libre ay lébu ku ñu xamul ñu xam suñu bopp ma wax leen ko fii président Bougane fa ma nekkoon gërëm naa leen sant leen duma leen xarab parce que samay papa sama yaaya fa nekk wante dama ne si lu ñu jëm politique dañ koy jël ñu teg ko fële si lu ñu jëm du ñu nangoote ñuy jël cancer des parcelles di ko jiital parcelle si lu ñu nangu kenn du ñu jëlal candidat ñu takkal la ay ndomb tànk te amaloo njariñ parcelle parcelle bu tawee kenn du génn treize point bas parcelle suuf si kenn mënu la ko wax école baa ngi nii ku dugg tey ci toilette yi am nga lu la naxari xale yi amuñu fu ñuy jànge correctement je suis dans l'éducation mais pour nga am résultat il faut xale yi ñu am un minimum de condition hôpital ma Abdou baa ngi nii du hôpital sant de santé la léegi case de santé la amul radiographie amul scanner amul bloc opératoire suñu jigéen ñaa ngi loru morgue bi amul clim alors que on a le deuxième meilleur budget plus de deux milliards et quelques chaque année maa ngi lay nuyu koo xam ne icône des parcelles la muy grand Youssou Ndiaye di ñu jàppale bu baax ci liggéey bi ñu ngi lay gërëm grand parcelle ñoo gën budget mais parcelle moo gën a sonn ci commune yi dama ne barki Dembo Ndiaye laa jóge yàggul ma maa ngi jóge Marsassoum soo demee Marsassoum tali ya fa nekk rond-point ya fa nekk infrastructure ya fa nekk mais amul Parcelles Assainies alors que ñun on a chaque année plus de deux milliards et quelques il faut que nit ñi may leen ma tuuti li may wax important il faut que nit ñi ñu jël prise de conscience mooy que ñii ñuy nax jeunesse bi dafa taxaw pour loolu jeex ci senegal bu leen nangooti ñu jox leen xartum bu leen nangu ñu jox leen 5000 francs bu leen nangu ñu jox leen ay t-shirt ay casquette bàyyi leen ngeen dox bay bëgg a dee suñu amee lu ñu am kenn du leen gisati kon nag ku nekk na jël responsabilité wax nga ko defaat 35 millions ñu ngi defaat million millions pour financer waat jigéen ñi parcelle président Bougane tey tey bi ma toogee fi nekk ak tailleur yi lañ ma woo ne ma lunette correcteur yi ak lunette de soleil yi nga xam ne dañ ko jëlee ba Paris egsi na donc dayul dayul dañuy defaat une campagne campagne comme bi ci xarafal dañuy defaat pour consultation ophtalmologique may nit ñi ay verre xool seeni bët ku ñu war a opérer cataracte ñu opérer Assainies nag moo ñu ñor parcelle Parcelles Assainies moo ñu ñor ku ñu dimbali si parcelle ñu jël wante ñu ñooy njëkk a dimbali parcelle ñun parcelle waaye et ce sera inchallah les dignes fils ñoo jël mairie bi toog liggéey mairie bi et ñaan naa ko président Bougane parce que parcelle dafa am ay réalité dañu yàgg xeex avec ñoo xam ne suñuy frère lañ nee naa leen mbuba parcelle mbuba politique nañ ko sànni fële ñu ngi monter incha allah président Bougane une coalition locale constituée par des partis politiques ñoo xam ne ñii leen jiite seeni yére politique teg nañ ko fële jiital parcelle lu amul Sénégal la ñu nekk di liggéey pour avoir une coalition boo xam ne même kilifa yi àndul nationalement localement incha allah on va sauver notre commune élaguer le cancer qui muy Moussi doy na quatre deux mandats quatorze ans amoo benn réalisation grand may ma tuuti may ma tuuti grand amoo bilan ñu ngi lay ñaan lillahi war rasuli nga jéem a jaar ci trou bi parce que fenêtre amatul ba jaar ci porte à la mairie ñaan nañ la ko mayal ndawu Parcelles Assainies ñu liggéey Parcelles Assainies parce que c'est possible et on a les capacité moyens yaa ngi fi relation yaa ngi fi dimbali leen ngeen bàyyi politique bi ngeen di def soo yeewoo Almadi nangul nañ la ko yeewoo Almadi toogal Almadi bàyyi ñu gérer Parcelles Assainies Quel original from Hard Town Parcelles Assainies remercier